نفيت إبليس لخير أبدا في شهر شاء وكل من لم وجيل من لمن من واسموا واسموا مقتل من لم يسلموا كمن لأمة النبي صلى الله عليه بالتسليم رب جل إجابة تسعسع الأنداب إلى سواه سلمة ودام لام يا كريم يا مهيمن ليستجب للذي يهيمن أمن ثم خير مرسلين هل الذين كفروا برسله قل لهم الأتراس عاجلا وبشرهم آجلا واجلا قل لسبيل الإيمان ما يزيدون حبك يا من كلهم أزيدون علي زي الإسلام يرزقوني إلى يداك وأني سكوني على النبي ورسول ملتان صل وسلم يا مبيد من جاب المنتقى ونال وصاب الكرام أوطن سلاميك وجلي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مولي الآليتني أني دمير ناجيتك اليوم أمس راجيا ولي قضيت دون جياب أوزي لأمتي نبي أحمد مسليا عليه في ممندا نترى عزيزا يمل الكبارا مع صقار لهم بارا تني العديش والفروع كالكتاب على الذين امتنوا من المطاب رافعوا بالفعل الكتاب والقروء ما راتي سائزا أتيت للجميع دون شلبي ولي تقول رسول وقت طلبي لأوصل الذي يريد والفيل الورايا مخيانا بالفيل معه تقصد لي بالمنتقى وقلت لي ما ودوش والتقى وجعت ما لا يزال وجبا في أبد لسالين مجبا مدت لي مدد من لا يخفى أليس يمدت لي بالأخفى لبيت كل من خلاني فغرب لما يسود تماما تقرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نسير نجيت من يتالق ما من سياتي فسوري أسماء وجاءت سوريا إلى رحماني المالك ريمس الاسماء كرمني في موضي وبلدي مكرم بأمن سباق لدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كليتي در وفيدي وكفى ناجيت ربي بزار رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان أمنت قبل اليسوق يسوق سرمدا لقارنا إبليس سوق من مدى قلوب جملة العدا توجهت لخير الدر والمنى لوجهت قلوب جملة الذين أفلوا ليتوجهت وربي مسلموا إلا الذين ظلموا عاد مدرتي اللي انتفت مدرتي والبلوى بفضل معين لي قار الواب له شكور إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يذكر كلي بالكتاب بلا محاتاة ولا عتاب ناجيت تناجي التكريم ولم يزل بلا في الكريم كتابا مع اليقين وفؤادي تابا نصرت لي فإنك النصير مع تائبي إنك البزير سمد قد أوزلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيدان ردت لي بلسي مبتان لي وجعل والأساس مبتان أجبتني جواب من طالب الذلة الوقت الانذار لوجهك الكريم أوصي الفرجاء للمؤمنين والطاقي رجاء مسليا وسلما على النبي بزير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرعات يا من ما للعصا وترى ما مع اليمر مرم البلاء يا من جميع قدمي تقبلا نجي على المصطفى فرد سلام مع سلام الميداهم الخلاب يسلم بي لسي تعسرا فكل ما يسرت تيسرا لا جاك عبدك قديماتك مرتجيا ليل المنام منك هذا الذي سيدوا بالخير وبا من لم يسدوا بديري مكرمة الأبان بالله هن ڏک ٻڌي أكرم رب العزيز الهولين ووالدي سبتين في دارين زبت سابت نبيل الخيام عليهم رضوان مجرى الأسيام نبى الليل من له خيسوم ما لدى في جنه مخزوم رفاق أهل بدر الإسلام وزاسوا الفجار وسلاما ما يسوع يسوء الخناس وسن من له أنا خناس بان لنا توحيد والفقه ما تصوف بمن دانا خما إلى سوى قد فريد على الله وسوى ملك وعلي دون مفسدة وليستجب دعوتي يا بر الله علي تكتب مع تزن جملة حول دعات كل يا تواب الله أنت الذي من نداء الإسلام منتقم ولي تقمت بما اخترت يا الله أنت العفو الذي أني عفوت بلا إبقى يا غيب أتيت الكل يلا أنت الرؤوف الذي آية رفته ولا تهاجمني أعداء الله يا مالك الملك لي وسخت دون جوان في الملك والملكوت دهر الله يا ذا الجلال وذا الإكرام حبل يمان لاخترت الدنيا اخرى منك يا الله قل لي يا مقسط المطلوب غير سؤرا إن الويبا ما رضواني الله يا جان مالي الأخراد متديا عني بكونك لي في الجميع الله أنت الغني الذي لا يندمي خرد جاب لي ما أهداني الله أغنيتني إنك المغني بلا سبب فسر لدن ليكن بالفضل يا الله عادتني إنك المقيم من القرباء كفيتني جملة الأعداء يا الله من نفت يا مانع الأسواء من قبلي ولا تواجهني ما شاء يا الله من نفت يا دار إني دور في أبد ولا تواجهني إدرار يا الله لي خط في كل زين نفسي كرم يا دافع بسم الإيمان يا الله نورت يا نور كل سافيا أبدا كويتني سلم الأسياء يا الله خلقت لي منك يا هادي إداية من خسى أبو المصطفى المختار يا الله أنت البديء الذي بانت بدائعه قلت البدائع لي بالأجر يا الله لسه في عمري يا باغي بغير لسه في عمري يا باغي بغير ردل وتبني بكتاب الله يا الله لقد جملة ما لقد من مدن وراسة وارث أموات يا الله أنت الرسيد الذي خلقت لي رسدا في كل شيء ما تفيد يا الله أنت الصبور الذي وجعت لي زمنا وقد سعفت بما عبابي الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa ak njabootu Xaadim Rasul gépp di sant yàlla bu baax a baax mi nga xam ne moonu mayon ñu teew fii daaw mayaat ñu teew fi ren ak wér ñi ngi koy ñaan tamit mu kattanal kattanal ñu may ñu ñu ko déwén barakati xadim rasul gannaaw loolu ñi ngi nuyu sëriñ bi sëriñ xaasim mbàkke moom cheikh mohamadul murtada di ko dalal di ko sargal di ko tatagal di nuyu timit kilifa yi nga xamne ño fi tew tam fekk ci len fi ci jotaay bi ci keur Serigne Modou Khary Bousso mom Serigne Massamba Faty mom Serigne Bousso bi di Serigne Massamba Bousso mom Serigne Modou khari mi nga xamne moy kilifa keur gi di nuyu timit bay Serigne Bousso be Bousso mi nga xamne moy kilifa keur Serigne Massamba Faty di nuyu njabot gi yep di nuyu tamit sering Omar Bousso mi nga xamne mom tamit moy jawrinam mom serigne Modou Khari ak serigne Jili ak eh, seeni rak ñom ñu fa nekk ñëpp bu dee ci soxna yi ñi ngi nuyu soxna mam Fati ak soxna mam Mati ak seeni rak ñom ñep ak sunu bokki talibé yi nga xamne ne ñoo fi nek di nuyu tamit kilifa yi nga xamne ne ñoo ànd ak serigne Xaasim man nañ cee ràññee Serigne Moustapha Bousso Cumbuleen ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñëpp ci sëriñ bi sëriñ bi ñu ngi lay dalal bu baax a baax ci sa bu bopp bii nga xam ne waxtu wu nekk suñu màggalee ba bis bi del si nga ñëw fii ngir mottali ko lëre ak def loo xam sëriñ bi xolom sedd na ci lool mom mi fi nek waye dañuy am njortu lu rafet ci ne sa xolub waajur wa Cheikh Mouhamadul murtada yi dana ci sedd waye timit serigne Modou Khary mi borom barab bi nga xamne ne taxone mo tax nga fi ñew di mottali kóllëre yi dana ci bekk ndax leer na mané serigne bi serigne sëriñ ak njabot gi fi nek la wuñu la ak jëmmi Cheikh Mamadou murtada mi ñew ci kër gi kon ñi ngi lay sant di la gërëm te di la ñaanal barab bi nga xamné ne nga ñew timit an mu jot ñu fatali ko wayé dañu nekk ci jamono yi xawlama muy mondialisation ngir image ak kaddu day tasaaroo fu nekk ci adina bi kon su fekkee ne gis nañ sëriñ Xaasim moom Cheikh Mahmadul Mourtada mu ñëw yendu si fii Gédé ci kër sëriñ Modou bu Bousso yàlla na ci fànn yu bëree bëree bari ngir mbokk gi ak taalibe gi waaye bokk na ci li tax mu koy gën a def te jàpp naa ne bari na ay moroomam walla ñoo xam ne ñoo yam ñoo xamne jaar nañ ci barab bi te ni mu koy defé wuñ ko ni kon ak rafetal ak bax rek motax ndax jëm ji nekkon fi di serigne Modou xari kat nekkon na fi yor xam-xamam bu yaatu ba tabe ci lool te ku ñew mu la ci kon su fekkee ne Cheikh Mahmoudul murtada dafa yëkkati woon serigne Xaasim mi indi ko fi ngir mu di fi xam gum xam ne loolu jariñ na ko bu baax ngir ñaari mbégtey kilifa yooyu tax at mu jot mu ñëw fii ci kër ñu Modou Khary fekk sa fi sëriñ bàcc ak njaboot gi ngir mottali kóllëre googu loolu mooy sabab jataay bii bis bu nekk su bisu magal gi dellusee mu def muy lu sedd xolum mbokk yépp sëriñ Modou Khary Bousso nag doomi moom sëriñ Massamba Faty sëriñ Massamba Faty moom sëriñ Bousso bi sering massamba fati ak serigne Mbacke buso mi borom dekk bi ak serigne Cheikhou buso ak soxna Xari ñoo bokk lepp doomi serigne buso be la doyna na xamle ndax magal gi ñu genn rek kenn ta fatale ko demu géejug serigne bi te do ci tuddu turu serigne Bousso be ndax bi mu duggé xalwatu fi ci daru khodos bokku na ci ñi galankor yi nga xamne ne borom wax na ko ne amna sa mbokku sa nijaay ju la jege di la ñaanal te am na ci man ab cër bokk na ci gàllankoor yi fii ak mi ngi fi su te su yëgee natt bi war a tege ci yow dana ñaan te du ma delloo ñaanam kon fii ak mi ngi fi lii nga bëgg moom du mën am ñaareel ba mooy dëkk bi danga koy génn sëriñ bu soobee nag kenn ku ne xam na ne amoon na ijaaba am na cër ci boroomam lool bi mu gisee may gu gu rëy nga xam ne moom la sëriñ bi nar a am waan akuna saafiyaan li xaw mi an anala minhu jaaxa yooyu yëpp it mu xam ne lam doon sonn moom sëriñ bu soobee ci xare ya ak ca jihaad ya ak lim daj ngir lislaam lam doon ñaan ku nar a xettali mbindeef yi mi ngi nii loolu tax na mu tànn moom it daya dayaale ji ak boroomam ngir liggéey bu rëy bii sëriñ bi man koo daale kon loolu it lu mat di fàttaliku la lu mat di wax la ndax ci ndam yu rëy rëy la yoo xam ne am na ko moom mooy waajuru sëriñ Masamba Faati bokk ak soxna jaara lépp xëy na bu koy wax ñii seetaan te xamuñ ñoo tax waaye jàpp nañ ne nekk jotaay bi xam nañ ñaareel bi it moom mooy waajuru sëñ Masamba sëñ Masamba Faati it mu teel koo jébbal sëriñ bi mu yar ko deg na ci sëriñ Ibrahima Bousso Mbirkilaan mu wax ne guddigi serigne bi ñeek fanan fi mom ci Touba mom ak serigne Mayaseen Ummi jang la fi bok fananal mu seddel len kamil bi ñu jallawle ko ñaar yoon neena mu xar ngad gu rek ne mu jox la wenn ngàdd taxawoon ak serigne bi ci xalwati bi mu wër Touba mom la doon andal ci lepp mu yar def ci mom lepp nak bok ci ñi nga xamne euh sëriñ bi daana bëgg buy nekk ci ay jotaayam ñu di ko ngir xam gum xam ci jeex gum jeex ci mom ak xam gim ko xam mom mom nak moy wajuru sëriñ Modou bu so mi borom kër gi nekkon fi ci jakkay Gédé ji imam doon borom xam-xam bu mag doon borom ijaba waye doon ko xamne debit sëriñ Touba moko yar moko defar duy duy ko bam fess del mo nopi sante yalla ci mom jotaay bi mu amon ci njaareem ci ne ko euh, dama bëgg sante yalla ci yaw ngir lima may ma defar baye defar dom tangalal ko ñetti baraaday attaay yo xamne ne ne ko naan rek la la ci defloo net li ko yoonu geejgi lepp ci jotaay sëriñ bi it sëriñ bi mom ak sëriñ baaxeer séddale nako ay donga ngir ñu diko jangal mu leen di jangal xam-xam kon japp na ne ak mëna jangaleem ak barkeelu jangaleem sëriñ bee ko def ci mom ndax sëriñ bi jangalé lo nako xam-xam ci biir kërëm mu doonon ku yalla dimbalé ci ñaan gu nangu ak ku mbax te it fi lol tamit doonon ku ko ci mbax kon su fekke nit ñi déglu ak di seetaan gis nañ serigne khassim mu ñëw fi dañuy xam ne kon yoy yépp rek jaroon na ko na lu jiitu li wax li borom xam-xam bi di di wax raaw jabal asya'i xaqa muallimi wa akaduhu haqqan ala kulli mahlami lolo mom duñ ko wax sax ci ñom ñi ndax Euh, dañuy jàpp ne ñoom njabootuk sëriñ bi bu ñëwee tamit di sàkku xam-xam ci ñu mel ne ñii amul jenn àq joo xam ne war na ci ndax dañuy xam ne dañ koy def ngir ndigal rek waaye suñ ko waaye suñ soo su suñ sukkandikoo ci ak ab xam-xamam akuk njàngam jàpp naa ne loolu tax na muy sàmm kóllëre gi nii muy la tax muy sàmm kóllëre gi bokk na ci fa hada murabbi ruuxu wa ruuxu jawharun wa hada murabbi jismi wa huwa lahu sadaf kon jàpp naa ne xam gi mu xam ne fii dafi doon defar ruwaam ba tax bokk na ci loola bokk na ci lu bari lu mu ko may ndax mooy laytaayu nit ki waaye ku ko xam-xam ne moom tamit yàlla dimbale na ko ci xam-xam ci bëree bëree bëri ci fànn gu nekk loolu ñu bëri xam nañ ko kon serigne bi ñing lay ñaanal rek di la dalal bu baax ci turu serigne bi sunu borom defal tawfiq ak taysir nga yagg fe ñëw te yagg fe fek sunu kilifa yi sunu borom mi def li nga ci wut lepp ci ko leere ci sa digeunte wajur wa ak serigne Modou sunu borom jotale la ci ñun ñi fi teew it sunu borom fajj suñu aajo defal ñu tawfiq ak taysir xam nañ ne jot gi manki na lool jamono ji xat dekk bi khatna képp ku jox nit ci taam benn waxtu rek xamal ne yëg nga ko rawatina nga ñëw yandu su fi loolu sëriñ bi yëg na ko bu baax a baax te kon kaddu yooyu lañ doon laytaaye rek ngir dalal sëriñ bi waaye dañuy jox kaddu gi sëriñ Omar buso mu yëkkati ay kaddu bu noppee ñu jox kaddu gi sëriñ bi sëriñ bi ñaan ñu bàyyi ko mu yeewee ko ndax xam nañ ne xat-xat yi bari na te jamono ji tàng na te ci nawet lañ nekk sëriñ Omar bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa sëriñ bi noo ngi lay nuyu siyaare di la jottali nu yóbbu sunu kilifa gii di sëñ Mbàcke Bousso ak ab siyaareem lii sëñ Abdou wax rek mooy mooy li nekk ci mooy mooy li nekk fi sunu kilifa mooy li nekk ci ñun tam ndax am naa kàddu gi mu ci yëkkati ndigal rek laa koy defee waaye li ma ta wax lépp wax na ko ma ngi nuyu itam mbokk yi nga àndal nga xam ne ay taalibe la yoo xam ne ñu ci bari daanaa leen gis ci wetu Cheikh Mouhamadoul Mourtada ñu ànd ak moom nga jóg ànd ak ñoom di gàcc ci dëkk bi loolu itam ba tey seetlu nañ ne ak yiw la xéewal la moo ngi lay sant daal te dala xamal ne suñ xol sedd na couleur gi nga dundal ñu couleur goo xam ne Sëriñ Tuubaa ko sosoon diggante digganteem ak sàmm sàmm Faati Cheikh Mahmoudou Mourtala feddali ko ci Sëriñ Muudu nga dikki feddaliwaat ko ci Sëriñ ak njabootam kon nag couleur googu yàlla na ko yàlla nangu te fuur ko te ngeen yàgg ko joxlante lépp di yokk ci ci xéwal ak njub xam-xam ci barke Sëriñ Tuubaa man nag maa ngi lay waxaat ci sama wàllu gopp li ma ñaanoon daaw te yàlla dogal ma gis ci e, e, ak cant muy njàng bi nga xam ne dañ ko fay defoon doon ko feddalee màggalee doon ko màggalee waxi waxi sëñ Modou Xarim ak sëñ Murtala yi ñu waxoon ci ba muy sës da alxalsa bi ñu demee ba mu jamono suñu xel nekk ci feddali seen wax yooyu def fi jàng bii muy jàng bu am njëriñ ci dëkk bi noonu yu bari jaar fi ba jàll am fi am ay di borom ba fi mu ne jàng bi siiwut rëyut waaye mi ngi dox da nga ñaanoon nañ la ren ji gis nañ ci ak yokk goo xam ne ñuy ndax Euh, examen yi ñu doon def ren am nañ ci cent pour cent am nañu itam meilleur élève ci élèves yi loolu nag xam nañ ne ñaan gi ñaan gu nangu la waaye du seenu jàmbaar kon nag ñoo lay dollee tàllaat suñu loxo rek nga dolli ñu ay ñaan ba mu gën a jëm kanam te lépp dëppoo ngërëmul Sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ bi kàddu yi am na solo lool te matale ni ko sëriñ bi waxee tamit euh, mat naa fàttali ndax Cheikh Mamadou murtala bi muy sos jàngukaayam bu mag bi di al asar dafa ñëwoon fii ci kër gi waxoon sëriñ Modou Khary ne ko dama am jàngukaay bu mag bu may sos te bëggoon su àggee nga bokk ci ña koy jiite te fekk na booba xam naa ne sëriñ Modou moom mage sant ko ci gërëm ci ñaan ci waaye ne ko incha allah dinañ ko ànd yàlla dogal sëriñ omor mii bi nga xamee ne am na man manu mën a mën a mën a mën a taxawal loolu mu tabax lii kenn ku ne xam ne def na ci alal ju bari ba noppi it aj ko ci al ashar kon dafay mel ne la Cheikh Mourtada doon sàkku ci suñ Modou moo nekk nii loolu lu mat a xam la ndax mënoon naa am man-manam tabax ko ci tabaxé ko ay kër wala mu def ci lenen waaye ku jël alal ju toll ni ak fu pak bu toll ni def ci jàngukaay bu toll ni ngir wala re loolu day dugg ci ñaanu ko kóllëre kon sëriñ bi nee na mi ngi sant ci lim waxon daw daaw ne ñaan nako ko ngir école bi barkel ni turandom loolu yalla dimbulé nako ko wax légui na ne mat naa leeral mooy examen yiñ def ren am nañ ci ay résultats 100% te bok nañ ci meilleur élève yi lool nak kon tawfer la te école bi japp na ne mo fi ñëk mo ñëk fi ci gox bi kon loolu momit yalla yàlla na ko yàlla dimbale te taxawu te it ñi fi jang ñëpp it sun borom barkel seenum jang te yégal barké bi ci barkeem ñaar ju bax ñooñu kon xamna naa sëriñ bi ñu jébal kaddu gi su ko defee bu noppé ñu nangu ñam bismillaahi rahmaani rahiim asalaamualeykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. sëriñ Massamba sëriñ Omar njaboot gi yëpp ak mbokki taalibe yi fi teew yëpp ñu ngi leen di siyaar eh, ci bis bi muy bisu mbégte ci ñun ak mu jot dañuy yàkkamti mu agsi jàmm bañ gis leen. li ma wax sànq sëñ li mooy li ñuy gisante ci diggante bi bariwul waaye nag yàlla nañ yàgg gisante comme at mu jot lay doom donte benn yoon la euh, ni ko sëñ Abdul Ahad waxee euh, diggante sëriñ Murtada ak sëriñ Moodu Xari dafa amoon kóllëre goo xam ne yàlla rek moo leen boole woon gannaaw bokk gi ak yépp dañoo bëggante woon ci ci xol loo xam ne ñoom seen diggante la woon ba tax sëñ bi yëkkati woon ma ne ma naa ñëw fi nekk këram defe naa ñu bari jaar nañ fi waaye ni ko sëñ Abdoulaye waxee euh, li ma fi jànge ni ma koy waxee toujours bari na lu mu fàtte waaye loolu mu fàtte mu ko ndax coono bi mu ci daan am ak yéene gi ma ko yéene nga xam ne man ak moom ci néeg bi ci deram boobu may toog euh, saa buy jëfandiku ñoom sëñ Omar ak fii waaye man maa daan bokk ak moom añ di bokk ak moom reer mu teg ma foo xam ne sëriñ Mourtada moo taxoon ak sëriñ bi mu jeexital ci man lool euh, kon bu ñu fi ñëwee tey toog ak sëñ Massamba ñoom ñi lu rëy la ci ñun ñu ñaan yàlla yàggal ko lu ñuy wax daal daanaka suñu plaat wax na lépp li ñu boole bari na ñuy ñaan daal yàlla dëgëral kóllëre gi ndax suñu borom moo ñu njëkk digal ñuy sàmm kóllëre waaye ñoom sàmm nañ ko bu baax ñu di leen ci ñaanal ñu yàgg fi wér yàlla yokk seenu man ak seenu taxawaay ci njaboot gi yépp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa maa ngi jégalu ndax wax fi sax waruma ndax sëñ laat mi wax na lépp ak sëñ Omar mi bu sëñ Xaasim waxee kon waruma waxaat waaye damay def seere rek si diggante sëñ Omar man li ngeen di wax kawe na ci man sëñ Omar mi ak sëñ Murtala bi mu ne jumaa ji daa na sëñ Murtala daa gënoon a sawar ci jumaa ji waxtu wu ne day da woo. nañ ko woo mu ñëw sëñ bi day toog ba min bi ak lu ma a doon sëñ Omar dana fa toog di ko xaar mu ñëwee mu yaatal ko lool euh, te sëñ Mourtala dem xàmmee woon na moo waral li ni xam lu muy li muy def dafa xàmme woon nit ñi lool am na si boo xam ne daa am koo xam ne man naa naa ko yótub oto kilifa goo xam ne man naa ko yótub oto ma dem jot ko oto ba mu ne ma jox nga ko ma ne ko waaw mu ne ma way juróomu jigéen dañu doon toppatoo loolu ba ñuy jàng xam nga loolu kon mooy kël moo waral lii rek mooy xàmmee gi mu am ñu bëri dañ naan lim def ci bitim réew waaye lim def lim samp ci réew mi gën a kii moo gën a yaatu te liñ naan bay ci sa tànk fii la ko tàmbalee ba noppi soo ko dugg àll bi ndax bu doon ne àll bi la rek day neex noonu day mën a yomb waaye fi mu mettee la tàmbalee woon ba dem foo xam ne gën koo yaatal nii am na yoon boo xam dañoo dem Amérique bàllo ji naan ko yow de sëñ bi fi nga yóbbu islam bi yon yonte bi yóbbu ko fi mu ne ko ah mi ngi xër ci wax ji di <laughs> lii daal day wane yaatal gu yaatal xàmmee gu simur laa xàmmee woon ak yaatal gu mu daan yaatal moo taxoon mën di woon fi sëñ xaasim mii ba ba ba lii am fi ba kóllër gii ngeen di ko téye moom mu téye ko ngeen téye ko ndax bu ko ci kenn bàyyi woon rek du dem kon yéen ñaar ñëpp ko téye yàlla na fi yàlla yàlla ñu yàlla yàgg saxal fii ñu fekk fee ñu yàgg fee fekk sëñ Masamba fekk sëñ Omar fekk kenn bañ a manqué yi dina gàññ barke Sëriñ Tuubaa maa ngi jégalu ci wax ji waaw sëriñ bi nee na xelam dal na xolam sedd na lool nee na suñu xel dal na suñu xol sedd na bu baax a baax a baax ndax ñun ay taalibe dong lañ. ndax ñun ay taalibe dong lañ. nee na suñu xaasim na nga xam ne say bi dong nga fi nekk. ñun suñ Tuubaa dong lañ yaakaar. mooy suñu yaakaar yi tey ak ëllëg. boo teewee fii ci suñu kanam. dañuy xam ne suñ Tuubaa moo fi teew waaw. jërëjëf nee na mi ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool bañ a am benn gàllankoor bañ a am benn ndog ci barkeb ki nga xam ne moonu fi boole dajale ñun ñëpp muy kenn ki rek muy Serigne Touba jërëjëf tàllal leen nangu leen ñaan rabbiya له كليتي في العلن وسر وولي قاد ولني ربط قلبتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تبديلا ربط قلبتي إلى الماء زنت ولزوانا ساق كل من فرد والنبي ورسول والخليل وهو الأبيب ويكسر الخليل الإمام باقي لا يزال سمدا على النبي ورسول يا مالا أبقى سلام الكريم سمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلام الكريم سمدي يا الله يا قادر يا مقتدر يا من يا جود يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولجان من فوق شوني جئت بذا القصيد ذاكرا لك بي وقبل لي قطب فدرك شدت قصيدتي شكورا ولم تزل يا مالك زكورا أكرمتني إكراما ما زال وكل ما أردت منك انزال آتيتني يا رب من لدنك شكرا حكيما فرقيضا لي يا ربي بوروفي يا وجدت بمعروفي ملكت لي بقولك الكريم ما قاد لتفيد والتكريم أعطيت لي ما القلب أنت كلما متى من درنا كلما كابا لمن مالوك ولا بما لخير ذاك كل من جاد أكرم لي بقل والله أهد ربي ولم يكن لوك كفوا لنا جاري الله الكريم صمد لنا جلبي كفاري الكمد وجعل الأكرم أنفى الكرم والدرري بخيرة للجرم